وخلفائه المهتدين واهل طريقه الفائزين خاصه صاحب الكتاب السيد وقرة عين صلاح الدين وجميع احبابه والمنتسبين اما بعد فين يمون تي جوتا بي ويسو ا تي حكمي موي لو كنت لا تصل اليه الا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك lam tasil ilayhi abadan walakin idha arada an yusilaka ilayhi ghata wasfaka bi wasfihi wa na'taka bi na'tihi fa wasalaka ilayhi bima minhu ilayka la bima minka ilayhi su fekkonte ne borom bi subhaanahu wa taala yow yegg ci moom mukk lu dul ne il faut que sa ñaawteef yépp deñ ak say woote woo yi nga xamante ne maanaam ak yi ci say mbir yépp deñ ngay doog a yegg ci yàlla ñaaw ñaaw yeeg yooyu kon doo yegg ci yàlla abadan waaye yàlla su bëggee nga yegg ci moom ni muy def mooy day jël sa ay meloom mu ràng la ko ak li nga xamante ne moom mooy ay euh, bu ko defee mu ràng ko say melo su ko defee mu daal di jël tamit ay euh, maanaam mooy melo mooy qualificatif maanaam attribut ak qualificatif mu ràng la ko ba bu ko defee nag daf lay jokkale ci moom ah, parce que moom li mu def ci yow la mais pas parce que yow dafa am loo def ba tax nga yegsi ci moom boobu gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu ah beneen bi nga xam ne moom lañ gisoon mooy beneen ma bi mooy man akramaka fa innama akrama fiika jamila yi falhamdu man sataraka laysa li laysa man ak akramaka wa shakaraka mooy képp koo xamante ne daf laa teral xamal ne dafa teral rek rafetu sutura gi nga xamante ne moom la la yàlla suturaal loolu la teral ci yow waaye moo tax nag kon ki jara sant dëgg mooy ki la suturaal te mooy yàlla ba tax nga maanaam mu ràng la ay melo yu tax maanaam nit ñi melo yooyu la ñuy gis mais gisuñu sa sa sa réalité parce que réalité jàmm mooy comme niñ ko waxee mooy ñàkk xam ñàkk solo ñàkk am ñàkk man et cetera loolu réalité jàmm en réalité mooy ak ñàkk tout simplement ñàkk am rek yàlla moo ko ràng meloog am mu am mu ràng ko meloog nangam mu nangam mu ràng ko maanaam ay kon yow ki la suturaal ba nga mel nii moom rek moo jar a sant mais du ki lay sant wala ki la teral dëgg-dëgg sauf que dinañ ko gis incha allah bu ñuy commenter yeneen euh, xekam yi ñuy kii mooy ne ki nga xam ne dëgg-dëgg tamit maanaam ànd ak loolu yëpp foog nga sant nag tamit ba tey ki nga xamante ne moom la yàlla jaarale mbir mi ci moom. <coughs> rang maanaam moom mooy moo la moo la vêtir moo la solal. voilà moo la solal lu voilà moo def loolu ci yow dégg beneen bi mooy wuruul beneen xikma bi ñu gis mooy wuruulul imdaad bi xasbil istidaad wa shuruqul anwaar ala xasbi safaa'il asraar wàccu tëbb yi maanaam yàlla li muy wàcc ci yow ci ay xeeti leer ay xeeti secret ay xeeti xéewal

lu xol bi gën a sell di gën a baax prédis muy gën a prédisposé pour accueillir li nga xam ne mooy leeru borom bi subhaanahu wa leeru borom bi subhaanahu wa ak ay secrets ci xol lay wàcc du wàcc ci jëmm luy nekk nii rek nekk ci jëmm léeg-léeg nag xëy la mu am ay traces ay yenn jeexital ci jëmmu nit nii rek mais en général du loolu sinon diwu nes nesal nii ba xaw a kii tuuti def kub bu rafet nii et cetera ñu naan waa ji daa leer temps yi loolu moom moo tax ñuy wax leeru yàlla ah parce que léeg tam mën na euh, bëri na ci awaam yi ñuy jaawale affaire boobu waaw waaw waaw waaw waa xam nga loolu waaw loolu tamit lool tamit bokk na ci maanaam mais euh, euh, li ma jublu ci wax bi maanaam mooy ne leer gi dëgg dëgg dëgg dëgg ni muy mel souvent ci xol rek rek rek lay feeñ dina am nag ay yenn traces yi moo tax ma ne dina am yenn traces yi yoo xamante ne dina feeñ ci jëmmu nit ki parce que xam nga nit ku baax tam nit ku baax souvent boo ko xoolee da ngay xam ne kii kii ku kat kat ku baax la d'ailleurs même ab bandi sax boo ko xoolee rek souvent rek le fait que nga gis ko rek day ngay tax nga mën a comprendre ne kii kat waaw kii daal nuruwul ah <laughs> voilà. kii daal dalul sama xel. xam nga loolu day am. Mhm. voilà yooyu jeexital yooyu mu mën nay am mais li ma ci jublu woon mooy tegtalewul ne maanaam nit ki bu gën xees wala mu gën a kii maanaam diwu bu rafet rek. Euh, def ay kii euh, xaw a euh, defaraat ni mu watoog yooyu rek ñu naan daa leer acca leer gi lu loolu maanaam lool laa ci jublu woon waaw wala wala wala ah, waaw waaw xol lay nekk moo tax ñu naan euh, euh, dañuy wax ne sururul axraar xuburul asraar dënnu gor yi maanaam axraar yi foofu liñ ci jublu mooy al al ulama maanaam borom xam-xam yi nga xam ne ay wàllu yi ñoom ñooñ lañuy ñuy wax seen dënn yi ay mbooti secret maanaam bàmmeel la ci secret yàlla yi bàmmeelu secret yàlla yi la dégg benen xikma biñu gisoon moy al alxaafilu idha asbaha nadhara nadhara fi ma dha yaf'al wal aaqilu yanzuru ma dha yaf'al Allah bihi aji yëgadi gi aji yëgadi moy ku négligent ku insouciant ku nek dans l'insouciance mom bu xëyee limi xol moy lan lay lan moy programme lan lay def wa tay day xeyna warna def li def li def li dama journée deng nga moy

waaw léegi xegma bi ñu war a gis tey ci suñu jotaay bi insha allah eh, ak bi ñu gis bu baax eh, voilà xegma war a gis tey insha allah eh, ci kàttanu yàlla bi ñu war a tàmbali xegma bu am solo la allah bokk na ci yi nga xam ne ñoo mat a gën a maanaam mën nañ ni mooy kooru kooru livre bi am téere surtout euh, partie bi ni kanzu bu njëkk bi bokk na ci mën nañu moom mooy parce que soo ko comprendre à travers loolu yeneen yi ñu doon wax yëpp da nga koy comprendre yii ñëw yëpp tamit da koy comprendre mooy innama yastawxishu al-ubbaad wa az-zuhaad min kulli shay'in li ghaybatihim an Allahi fi kulli shay'in fa law shahiduhu fii kulli shay'in lam yastawxishu min shay innama li am ba des mooy yastawxishu njaay àllu na maanaam yëg nag njaay àllu mooy mooy ab benn euh, euh, distance benn euh, ñàkk am benn affinité maanaam mooy xam nga lu domestique mooy loo tàmm di gis loo tàmm di nekkal miin ko ah waaw li li moom mooy sauvage mais sauf que sauvage xam nga damay maanaam li ma bëgg a wax mooy comme tey bu fekkente ne ñaari nit nit koo xamante ne tey da nga koy doog a gis xamu ko dafay am benn lu euh, mu moo bi étrange voilà day étrange ci yow voilà loolu la maanaam loolu nag le fait que ñi nga xamante ne nag moo mu loolu mooy njaay àllu njaay àllu mooy dem ba yëg ni maanaam comme tey nit ki tey su su demee gis nga boo boo jëlee benn kaw kaw tey par exemple musul ñëw ci taax xamu ko musul yee dem seet musul seetaan télé et cetera nga waat ci ko cëpp nga cëpp ko ci benn grande ville ni bu yegsee rek ku ko gis rek day xam ne kii bokk <laughs> parce que léppay tumuraanke ci moom <laughs> léppay tumuraanke ci moom <laughs> ba pare comportement yi nangam loolu da koy laajte maanaam yi gën a simple yi nga xamante ne par exemple robinet bi nun ko ubbee day day taxaw ci kanamu kii bi xool wala mu beus ki comme fii nii affaire bi beug mu arrêté mu beusat ko affaire bi ndox bi gën pour mu beusat ko parce que xamul. ah ah, ah. ah bal ah xam nga ak yu mel manam moy ko xamantene ne moy moy moy moy moy sax moy jek moy yek ni da nga am euh, étrange da nga sentir ne da nga sauvage da nga étrange par rapport ak milieu bi li nga léegi nag loolu sentiment boobu loolu lay wax ne moom amu ko al ubbaat al baat maanaam jaamukatu yàlla yi nga xam ne ñoom foo leen fekk ñu ngi kii yëngal kurus di julli lu bari woor lu bari def kii ah, di kii waaw foo leen fekk ñu ngi kaamil bi nangam nangam di kii di ah, et cetera après wa zuhaat ak ñi nga xamante ne ñoom ne dëddu àdd ñu dëddu àdduna yu mag yi ñi nga xamante ne ñoom foo leen fekk bëgguñu nekk nit ñi duñu lekk lu bari duñu naan daanaka ah, tuuti dañoo bëgg kii duñu nelaw lu bari dañuy kii genre yooyu nga xamante ne dañuy so maanaam mooy xeet xam nga loolu waxoon nañ ne benn xeetu nitu yàlla lañ ñoom ay xeet nitu yàlla lañ ñu tudd ahlul xidma mooy ñi nga xamante ne dañuy yàlla daf leen a tàggat rek pour ñu koy liggéeyal daleen tàggat pour ñuy liggéey parce que ñooñu du ñu ñu mag ñi léegi ñooñu boo gisee ñu ñuy am benn genre ñu yëg ak njaay àllu gu nekk ci ñoom min kulli shay'in ci bépp mbir soo ko gisee loolu am ci ñoom parce que ñoom mënuñu nekk par exemple fu bari nit parce que bu ñu nekkee fu bari nit euh, seenu ngëm yàlla day gis seen ragal yàlla seenu jaamu yàlla day wàññeeku. bu ñu fréquenté par exemple bu ñu boo leen gisee tamit ñoom mënuñoo tamit bañ di julli lu bari fu ñu toll fi naafila par exemple ak ak weer yañ daan def yi di tout le temps foo leen fekk ñuy ñuy sikkar sikkar sikkar yu bari ak di di yoy nonu mënuñu koo bañ a def parce que ñooñu fiñ ko deful dañuy seen seen ngeum moy moy rot day chuté seen yu bari day chuté mënuñu koo bañ a def ñoom nak tamit euh bo gisé kon ñuy luñu bëgg di nekk ci milieu bi nit ñepp nekk di fréquenter nit ñi manam mais il faut que dañuy soxla di nekk ci liñu nekk da fekk na li xaybatihim dañ see li ko waral moy seenu faddo anillaahi wallahi fi yàlla maanaam le fait que yàlla absent ci ñoom loolu moom moo tax fii kulli shay'in ci bépp mbir maanaam ñoom du ne lu ñu ñoom ñoom yàlla daf dafa am rek fu muy présent par rapport ak ñoom yàlla présent wul fépp ci ñoom maanaam ci seen gis-gis ñoom seen xol ce qui fait ni ñoom bala ñoo mën a am jàmm dem ci seen néeg bi ñuy dugg bi ñuy kii wala guddi jot ñu mëneen di naafila ba du doog a yëg ni seen xol mi ngi leer maanaam ñuy doog a yëg loolu bala ñoo ak ci ñu nekk ci biir jàkka par exemple bu nekk ci biir jàkka ci la ñuy doog a yëg ne ah fii nag tabarakallahu jaamu yàlla je suis de un voilà ci yàlla laa nekk maanaam il faut que ñuy am lu ñu nekkee pour yëg ni maanaam foog ñuy nekk tamit di zikar toog benn coin di zikar zikar zikar zikar zikar xeetu zikar ñu nekk ñu di ko def ak di kii foo jël kii kaamil bi durus ko duruus ko durus ko durus maanaam Euh, non attention waxuma ne yooyu baaxul parce que waxoon nañ ne ñooñu xeet wàllu la ñoo xam ne bu leen yàlla tëbbuloon maanaam wàccul woon leer bu ñu amee kàttan di def loolu duñ ko mën mais c'est que sauf seen niveau dafa baax par rapport ak beneen xeet bi nga xamante ne ñoom ñooy ahlul mahabbati ñoom ñooy ahlul mahabbati mooy borom ñoom nga xam ne seen seen seen seen maanaam borom cofeel yi la. E, lirik yon yon. E, kon yon yon, bo gise yon, yon man lol, lol mwata, yon paske yal la da pa prezan ou li fye par rapor yon. Lol ata yon, loun yon gise dey, etransi yon, dey, ambe yon jan rousevajeri woy, amse yon digente ag lol, ag yon. Fala ou chan yon, sou fe kontene denon kouy, deni woy, jaka log yal. Man am di ko gise, man am dey temwanyen, an di ko kontemple. Fi kou lise yon, timbir moun yon mwene gise mounen. Bouron lol la. lam yastawhishu kon duñu nek ñuy njaay allu di yek ak njaay allu min shay'in ci dara kon duñu nek ku yek duñu yek ak njaay allu ci dara legi nak lolu ko loolu moom lay développé ni mun ne xalaqa taala al khalqa li yadulla ala allah taala la li yadulla ala nafsihi fa huwa taala zahiru fi kulli mazhar fama ghaba abadan wal kawnu kulluhu ghaibun ma ظهر abadan فالعباد والزهاد استوحشوا من الأشياء لرؤيتهم إياها أشياء فارغة من وجود الله فيها فتركوا الأهل والمال وانحازوا إلى القفار والجبال حتى يرتاحوا من شرور العباد ويتخلصوا من العلل والآفات فأساءوا الظن بالعباد فوقعوا فيما منه هربوا آه، première catégorie bi nga xamantene mom lañu moy noonu nonu ñoom xalaka mu ne xalaqa bind na allah bur yàlla taala aji kawe ji alxalqa mbindeef yi li li yeddul la ngir mu tegtale alallaahi ci bur yàlla ci boppam maanaam yàlla kon dafa bind mbindeef yi pour ñu tegtale yàlla ci boppam waaye bindu pour ñu tegtale kan ah laa li da la déeri tegtalewul ala nafsi yi ci boppam ci boppam maanaam ci dégg nga maanaam mbir mu ne ak kenn ku ci nekk sama borom subhaanahu wa taala daf koo bind pour mu tegtale yàlla kon ce qui veut dire que ni lépp loo xamante ni danga koy gis ni war nga gis sii ñu yàlla ci loolu maanaam tey boo xoolee benn bi la ah yàlla daal moo màgg xoolal ni mu bindee lii xoolal ni mu defaree lii xool maanaam yow loolu nga war a gis xoolal yàlla daal moo am sañ-sañ yàlla daal moo am kàttan yàlla rek am man hmm? yàlla mën na lu ne hmm? et cetera ah, an an fanta dafa dem ah, ah. <laughs> d'accord <laughs> waaw xam nga moo ne xam nga yàlla mën na lu ne ah. <laughs> waaw xam nga waaw xam nga loolu hmm? kon maanaam yooyu yëpp maanaam yow yow da ngay gis kon mbir mu nekk da gis ni yàlla amee maanaam yow looy gis rek da ci gis màggaw yàlla kàttanam sañ-sañam loolu mooy niveau bi gën a baax loolu mooy niveau bi nga xam ne il faut nga am ko au minimum te loolu moom la ñuy gisee yàlla xam nga bu ñuy wax ni dañuy gis yàlla ci mbir yi ci lu nekk tegtalewul ne yàlla dafa nekk benn jëmm bu ñuy gis bu ñu xoolee dara tegtalewul loolu abadan ah loolu il faut que ñu comprendre ko euh, yàlla dafa feeñ ci lu ne tegtalewul ne maanaam maanaam mooy à travers lu ne lay tekki maanaam à travers loolu da nga da ciy gis yàlla loolu lay tekki mais tegtalewul ne yàlla ci jëmmi boppam maanaam moom mooy jëmmi mbir yi ci seen bopp ah abadan loolu loolu kufrun ba waaxum la muxrijun anil milla la loolu ak kéeféer gu leer la goo xam ne day tax nit ki génn ci lislaam ci boppam yàlla tere yoonu nitu yàlla yi parce que yàlla kenn la waruñu ko bokkaale ak dara yaa ngi dégg mais bu ñu waxee ni yàlla par exemple dafay feeñ ci mbir yi li muy tekki mooy su ma gisee nit xoolal par exemple euh, cosaanu mbir yi mooy ak ñàkk loolu mooy seen cosaan yàlla rek mooy ki nga xam ne moo fi càppaacoli bi nga xam ne dafa mës di am gis nga yàlla yàlla yàlla moo jox eh, eh, eh, namm namm dégg nga muy muy muy muy bëgg di jot jot lee xam ne ndijaayam yi buñ taxawoon duñ ko jot loolu namm namm loolu maanaam iraada boobu nam namm boobu maanaam namm-namm en tant que na namm-namm iraada volonté loolu melo yàlla la sinon mbindee fi amuñu iraada amuñu namm-namm amuñu benn volonté bu ñuy am ci lu ñuy tànn wala lu ñuy def amul mais sauf que yàlla daf leen a ràng mbir moomu moo tax nit ku nekk ci ñun dina yëg ni léeg-léeg mu am ay choix yu muy def te loolu dafa naturel maanaam loolu kenn ku ci ne xam na ko mais dama man day euh, nangam présenté wu na mais dama bëggoon def mais man sama choix sangam laa def lii ah loolu en réalité comme li alquran wax wa ma tasha'una illa an yasha allah seen namm namm amul lu dul ne namm namm yàlla moo am ba pare maanaam yàlla moo jël namm nammam askanale ko yow yow mais en réalité namm namm yàlla la bu mu la askanale yow boo xoolee nag loolu nag day gis comme par exemple li njëkk am moom mooy le fait nit ñi Tou sempleman, manan wole min defi, ge miti nyaka am bin nyakona am, nyoutik am. Lolo nak, le fet ke nyon, manan nyaka am kon melo min defi la, me am melo yal la la, moun rek. Moun lak mounen, moun jil mbou mbou wawo, wala, melo wawo, rangle wiko, moun tak nou eksiste. Lolo deja, yon te yon kom parazanm, kon le plou gis wou eksiste rek, denga wole gisne, a, ah, manan, yon met atribu wou mwen eksistans, existence yàlla nga war a gis à travers existence boobu yaa ngi dégg léegi nag mu des koo xamante ne dafa am kàttan nga gis kàttanu yàlla à travers loolu même bu dul dara nekk nekk yi rek dangay xam ne lu ne pour mu exister pour mu am kàttan a ko amal xam-xam a ko amal man-man a ko amal sañ-sañ a ko amal te loolu yëpp bu yàlla la nit ki noonu nit ñi Euh, comme seen namm-namm lépp ci yàlla la aju da gis comme tout le temps ni yàlla di soppandikoo ci mbir yi di wëlbatee mbir yi di dogal comme mooy dogal mooy mooy mooy gëm dogal ci boppam moo tax mu nekk ponk bu am solo ci ngëm yàlla nga gis tamit kon ngay gis euh, mbir yi ni mu nekk tamit ni mu nekk ki nga xamante ne maanaam sama borom subhaanahu wa ni mu ràngee par exemple ñenn ñi meloog dund parce que xam nga am na yoo xamante ne da leen di gis dund dunduñu am nañu existé nañ mais dunduñu am nag ñoo xamante ne ñoom existé nañ mais dañuy dund ki leen ràng meloog dund mooy yàlla parce que ñoom ci cosaan nekkuñu ñuy dund yàlla rek mooy alxayyu moo tax ñu naan alxayyu mooy kii dund dund gi nga xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem te lépp luy dund ci moom la jële dund te dundug loolu day dépendre ci dund yàlla kon yow boo gisee luy dund yow daf laa war a tegtal kan da ngay war a gis yàlla à travers dund kooku moom muy dund yow nga war a gis par exemple ne alxayyu <laughs> mu ngi fi bu fekkente ne par exemple dafa am benn forme bu mu amee comme ni ñu ko waxoon keroog bu amee benn forme bu mu amee nga gis ne ah ki nga xam ne mooy melal mbir yi lu nekk mu jox ko forme moo ko moo ko melal nii mooy al musawwir par exemple maanaam et cetera toppal loolu boo gisee kuy gis. nga gis à travers moom ne yàlla daf ko ràng melo bi nga xam ne moom meloom la parce que yàlla rek kay gis lépp mais dafa jël ci meloom gis googu mu nekk euh, maanaam attribut mu jël ko solal ko mbindeef bi nekk ci sa kanam te lay gis di la xool ce qui veut dire que yow boo gisee nit ki di la xool dangaa war a gisaale à travers xool googu bëtu yàlla bi nekk ci bi ci ci bi bi nekk ci biir ci baatin bi baatinu mbir mi ba nga xamante ne yow nit ki bu la xoolee comme nit ki moom mi ngi lay gis nga gis ne ah kon ndekete man yàlla mi ngi may gis maanaam et cetera toppal loolu nga def ko maanaam nga lan ko topp ko ci mboolem melo yi maanaam topp ko ci mboolem melo di nga gis ne doo doxati ci kaw suuf doo dajee teg dara lu dul di nga gis ne lan kenn ndekete fi yépp yàlla rek a fi ne loolu lay baat boobu di tekki mais tekkiwul mais comme yàlla dafa nekk nii kii naan kii yàlla la kii yàlla kii ñu nekk ay yàlla yu bari ñun ñëpp nekk yàlla alors que yàlla kenn la kon ku jàngul lu mu dof dof dof xam na ni dégg nañu naan qul huwallahu ahad limité ci mooy waxal ne yàlla kenn la ah voilà donc loolu dafa war a nekk loo xamante ni dañ koo war di bàyyi xel léegi. Euh, kon yàlla sama borom subhaanahu wa boo gisee par exemple koo xam ne da ngay gis dafa am yërmande yow da ngay gis yërmande ak yàlla yàlla ràng bi ko ràng meloom moom. boo gisee nit koo xamante ne dafay taxawu nit ñi da ngay par exemple yàlla moom mooy alqayyum mooy kiy taxawu mbindeef yépp te taxawu boppam nga gis ne ah yàlla daf koo ràng boobu melo. toppal loolu toppal loolu boo gisee kuy kuy kuy kuy kuy koo xamante ne par exemple dafay dafa nekk koo xam ne dafa sonal nit ñi ah. di len ngatt di len sonal di len ki manam moy nga gis ne kon yalla daf ko rang ben ci melo mi al jabbar manam borom subhanahu wa ta'ala ci bopam mo feñ a travers kok <laughs> ci ci tur boobu ah voilà boo et cetera toppal loolu boo gisee koo xamante ne ñëpp moo leen nga xamanteni mom comme ni ne wax moy gendarme aduna bi <laughs> ak yoy nga xam ah yalla mo len moko rang turum bi ñi wax ah, manam al mu manam kon nga gis ne yalla ci turum bi à travers koku bo ko par exemple dafa dafa la euh, defal manam dafa def njek yow dang ko dara mu fay la njek gu toll nga à travers koku manam ci turum bi wax ash ki nga mom moy njek et cetera et cetera manam hein? par exemple nit ki jël alalam wala wërsëgam jox la ko da ngeen a ah naan ah kii de yàlla moom moo fee moom moo feeñu at moo feeñu ci moom à travers turam bi nga xamante ne moom mooy mooy ar-Razzaq et cetera maanaam toppal loolu toppal loolu kon ce qui veut dire que ni amul fii dara lu dul ne yàlla moom moo la moo kii boo gisee xale yi nga xamante ne ñoom souvent dañuy am euh, euh, kii xanaa maanaam ak euh, benn affection ak. voilà euh, nga xam ne yàlla moo feeñu moo feeñu à travers ñoom ràng leen turam bi ñuy wax al alxannaan wala al waduud et cetera maanaam ce qui fait yow dootoo gisati dara luy dox ci kaw fuuf ludul da ngay gis ne yàlla moo fi ne dootoo gisati leneen ludul ne yàlla moo fi nekk moom kese ak ay turam ak ay meloom moom mooy feeñ à travers mbindeef yi en réalité kon mbindeef yi ñoom ñëpp ñi ngi ci seen cosaan ñàkk am yàlla di feeñal boppam à travers ñoom ci ay turam ak ay meloom jeex na loolu nag moom moo ëpp doole hmm? maanaam ngay fanaanoo di julli et cetera di sikkar sikkar boo xamante ne àndul ak loolu d'ailleurs ci ngay comprendre euh, ala bi zikrillah tasdaadu zunub ci nga koy comprendre maanaam ne sikkar bi ñuy di gaay di sikkar loolu day yokk bàkkaar maanaam loolu euh, <laughs> sens sens bi ñu ko waxee maanaam aarif billahi yi sens bi ñu ko waxee ci lii nga koy comprendre c'est-à-dire que maanaam yow boo nekkee di ko si zikkar noonu te bàyyiwuloo xel ne en réalité du kuy fat du ku fàddu ba nga koy fàttaliku parce que ku fàddu la ñuy fàttaliku léegi yow loo yokk ci di ko fàttaliku parce que da nga koy fàtte c'est parce que sa bàkkaaru fàtte gi ngay fàtte yàlla mu ngi yokk loolu la hmm? voilà moo tax mu ne ko tamtamisul basair wal qulub ci la bëtu bëtu bëtu xol yi maanaam clairvoyance ak xol yi ci boppam day muuru ci booy zikkar maanaam loolu lay tekki mais tekkiwul ne zikkar baaxul nangam nangam non tekkiwul loolu <laughs> mais li ñu tekki mooy yow da ngaa am benn négligence insouciance boo am par rapport ak li nga waroon li nga waroon def mooy ku ne fàng kenn du ko jeex te yàlla dañu fang mom moy az-zahir manam mom moy ki nga xamne mom moy ki feeñ legui lolou lay wax nak mu ne. legui bo gisee ko xamantene jikko def fan fa sa safaanoo lolou ak melo yàlla yeeg tur yàlla yi fete yi ñoo koy xoolee. loolu ci bopam mom la manam yow lolou mom mo amul parce que bépp melo bo xamantene amna bépp melo bo xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala daf ko amal manam daf ko daf ko daf ko daf ko yor rek. kenn koo gis ku nekk mën nga ko askanale benn ci tour yooyu yàlla mooy feeñal boppam à travers yooyu wax naa la jox naa la ci exemple ci kii sonalaati nit di leen njatt ak leen kii nga nga nga xam ne kon kii jabbaar maanaam yàlla moo feeñal parce que ñaari possibilité rek moo am mooy yàlla feeñu ah ci ci nit ñi à travers maanaam bu ñu jëlee le gén le général ah sinon am na yu njëkk yi nga xamante ne ñoom ñëpp ko bokk mais yi nga xamante ne nit ñi dañ ciy particulier yi nga xamante ne dañuy particulier ah d'accord am na ci yoo xamante ne maanaam yi nga xam ne ñoom ñooy yu particulier yi nit ñëpp nga xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk ah, am na ci yoo xamante ne ci côté jamaal gi la am yoo xam ne ci côté jalaal gi la maanaam mooy yàlla daf lay feeñu à travers loolu bokk waxoon nañ ko ci jotaay yële yalla leg leg mu feñu nit ki mu feñu ci à travers nit ki à travers wala bu nit rek ah mbindeef mu ne à travers mom ci melok jamal manam tar gi manam moy par exemple mbaax gi euh, jariñe gi euh, euh, di def li tax li tax manam ngay contane et cetera loolu moy taar mooy jamal bi mu am benen côté bo xamante côté jalal bi la manam moy euh métit gi Ah, coono gi naqar gi xat-xat yi et cetera maanaam loolu ngi ci gis tamit ne borom bi subhaanahu wa taala moom mooy feeñu à travers kooku en réalité amul dara lu fiy dox wala luy dem wala dikk lu dul ne yàlla moo ko dogal au moment yàlla moo ko dogal en réalité lii yi ci des yëpp ay kiiraay lañ sabab yi ci des yëpp ay kiiraay lañ rek yoo xamante ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi muus ñi dinañu gis ne lii kiiraay la ñoom dañu gis yàlla mi làqatu ci ginnaaw loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi insouciants yi ñoom dañuy gis sabab bi rek fàtte ne yàlla moo nekk ci ginnaaw loolu lépp hmm? dégg ah, kon nag fa huwa moom buur yàlla taala aji kaw ji az mooy aji feeñ fii kulli mazhar ci bépp mbir mu feeñ kon lépp loo xamante te dafa feeñ moom yàlla moo feeñ ci du nag yàlla tamit nit ki war a nekk koo xamante ne dafay wàcce boppam day modeste day ji day jiital ak effacement pour feeñal yàlla dafa war a jiital effacement pour feeñal yàlla pas mu mu muy nekk di feeñal boppam voilà ah <laughs> waaw ndax comme borom bi subhaanahu wa moom mooy ki feeñ ci bépp feeñuwaay en réalité yow da ngaa war tamit non seulement euh, ci sa bopp mais ci ñi ci def du gis nga. Euh, loolu même euh, ñi xam yàlla dëgg dañ koy xam ba nga xam ne euh, euh, léeg-léeg ñu mel ni ñu xaw a rëy maanaam ñu mel ni ñu am benn kibru rëy nii wala benn genre ñoo xam ne dañuy jaayu wala ñu et cetera ah alors que seenu xam yàlla rek moom moo feeñ maanaam ndax ñoom mbir mi yëpp kooku yàlla rek lañ ko askanale ñom dañuy contane ci le fait que ngir <laughs> ñoo ci ñom loolu mo motax ñi yëg di ñi nga ñoo ne dañoo insouciant ñooñu booy boo leen de bo comme par exemple bo taxawoon di leen tank ki mo baax ki mo melni ki mo melni ki ñom kii <laughs> da ngay gis comme comme comme comme comme quand même bëgguñu euh, rëy ak yooyu ak et cetera ak yooyu da ngay gis ñu am ben euh, manam dañuy tëju manam affaire bi du leen neex alors que bu fekkee ne nit ko xam yàlla la loolu soko ko mom da ci contane parce que lu tax parce que day gis ne yàlla rek lañ nekk di tagg parce que moom moom moo ko moo ko suturaal nii moom moo ma ràng ci moom melo yi et cetera. yaa ngi dégg kon nag moom yàlla famaa xaaba musul fàddu abadan abadan mukk musul fàddu wal kawnu kawnu bi mooy nekk ci fi kulluhu lépp xaybun dafa fàddu maa zahara musul feeñ abadan mukk mooy li ñu wax léegi maanaam mooy ay dara nekk fi lu dul lu yàlla ràng ay meloom yow nga war a nga waral gis ne àdduna bi mi ngi ci cosaanam ci sax ci ñàkk am yàlla rek fi nekk di feeñal boppam waaye nag ci ginnaaw ay kiiraay léegi yow bu fekkente ne yow mënoo koo xàmmee loolu loolu problème bi foofu la nekk léegi nag fal ubbaat nag léegi nag problème bi nga xam ne moom la ubbaat yi am mooy ñu jaamukatu yàlla yu rëy yooyu wa zuhaat ak dëddukatu yu àdduna yooyu noonu istawxashu danoo njaay àllu min minal ashiya ci dañoo yëg ak njaay àllu minal ashiya ci mbir yi dañoo yëg benn yi étranger parce que ñoom yàlla comme yàlla lañ bëgg parce que tamit ñoom yàlla lañ bëgg jaamu yàlla lañ bëgg kii lu dul yàlla neen la yooyu la ngay mooy seen kii waaye yàlla rek leen intéressé looloo tax ñuy sonn ci julli yu bari ci woor yu bari ci sikkar yu bari ci et cetera toppal loolu loolu moo tax mais loolu mooy moyen moyen la pour ñu yegg pour ñu am ci objectif bi hmm? léegi nag euh, ñoom boo gisee nag ñoom comme yàlla rek a leen intéressé te ñoom du ñu gis yàlla ci affaire yi ñoom lan moo tax ndax li ru'yati na li ru'yatihim ngir gis gi ñu gis iyaaha mbir yooyu ashyaa an ay mbir ñu nekk ay mbir kese faarixatan yoo xam ne dafa deñ dafa set wecc min wujudillaahi ci amuk yàlla fiiha ci mbir yooyu maanaam ñoom le fait gisuñu yàlla à travers mbir yooyu moom moo tax mbir yi tamit du leen intéressé dañuy jàpp ne ña fii lii yëpp daf fee nekk pour tentation kese la Ah, ah boo fi toppee affaire yi ah, lekk gu neex gi sax dañ ko war a bàyyi ah, et cetera maanaam eh, eh, eh, voilà voilà ay nelaw yu bari yi yëpp waaw problème et puis soxna yi ñoom dañ lay tardeel man boo moytul sax <laughs> dootuma voilà et cetera nangam nangam maanaam parce que lan moo tax parce que ñoom ñoom bu ñuy gis affaire yooyu. du ñu gis ne ndekete yàlla moo feeñ à travers mbir yooyu ñoom affaire yi rek la gis noonu léegi nag euh, fa taraku moo tax ñu daal bàyyi ñoom al ahla ñoññe maanaam bàyyi seen waa kër yi wal maala ak alal ji maanaam euh, voilà wan xaasu ñu dem làqatu ji ilal xifaari dem ca àll ya wal jibaale ak doj ya xattaa mbete yartaaxu bu ñu mën a féexlu mi min shururil ibaadi ci lori jaam yi bu ko defee ñu naan voilà bu ko defee nag man dootuma voilà danaa mucc ci lépp loo xamante ne ay tentation la ak ay problème la li est-ce que bëriwul ah <laughs> waaw léegi ñoom kon genre yooyu lañ maanaam ñoom kon dañuy jàpp ne euh, dañuy jàpp ne kon ñoom maanaam mbir yi mbir yi yàlla ci boppam daa nekkatul ci mbir dafa nekkut ci mbir yi moom moo tax yaa ngi dégg waaye te na bu ko defee ñu daal di mucc ñoom dañuy jàpp ne en fait le fait que nekkuñoon nit ñi nii loolu ak mucc la ñuy tëju comme ni nga wax sëñ bi daa tëju ñuy tëju rek alors que bu ñu xamoon du ñu tëju dañuy nekk ci biir nit ñi bu bu doon bu doon yegg nañ niveau boobu en lu nit ki di gën a jege yàlla day gën a sori looloo tax xam nga am na ci benn fu mu ko doon waxee ci biir ci yenn benn ci yenn passage mooy lan mooy kii doog a tàmbali dangay gis mu ànd ak cawarte foo ko fekk maanaam di julli yu bari woor yu bari natt ak ki kii di saraxel lu bari di di jàng alxuraan lu bari di sikkar lu bari et cetera tout ça nekk ci kii foofu ah da ngay jékki benn moment rek mu mel ni yooyu yëpp da ko bàyyi. nit ñi nag dañuy foog ne kii ab bëri rek la am wax ah, gis nga gars yi de ñoom bëri rek affaire bi du course de fond doo du fo doo du course de vitesse course de fond la maanaam ñu foog ne moom noonu la en réalité fekk dafa jàll ci beneen niveau bi moo tax. fekk moom dafa jàll ci beneen niveau bi moom moo tax mooy ne dafa jox priorité jëf yi nga xam ne xol bi moo koy def que jëf yi nga xam ne cër yi nii rek ñoo koy def nit ñi dañuy foog ne moom mi ñuy tardé fi mu toll moom avancé tul fekk du deñ di nekk ci benn ascension spirituelle d'ailleurs loolu loolu comme niñ ko doon waxe bokk na ci li gëna tax souvent nitu yalla yi ñu kawé ni sax gaay yi duñ leen xàmmee duñ leen mëna xamé parce que dañ dul gis ci biti parce que ñom nattuwaay yi ñu am yépp ay faux nattuwaay yi ñu am maanaam euh, euh, er, er, er, ki balance amul benn balance buñ ci am buñu <laughs> ah <coughs> dégg nga mais nak attention ñi melni ñom dinañ leen xamé ñi melni ñom dinañ leen xàmmee ba benn maanaam ci ah maanaam ci benn niveau quoi à un certain niveau dégg léegi kon gars yi ñoom loolu lañ def maa maanaam dañuy bëgg di dem di féexlu pour pour mën a mucc ci loru gars yi parce que gars yi boo nekkee ci seen biir nangam nangam waaye na bu ko defee ñu mën a mucc yaa ngi dégg minal ilali ci ay eh, ilal mooy sikk ci ay sikk wal afaati ak rëq-rëq bu ko defee défaut yeeg vices yi euh, euh, obstacle yi nga xam ne ñoom ñoo mën a am seen diggante digganteeg seen boroom yépp ñu mën ci rëcc mais fa asa ñu daal ñoo ñoo ñaawee nag azan na njort bil ibaadi ci jaamu yàlla yi maanaam ñoom bu boobaa dañuy daal di ñaawe njort ci ci jaamu yàlla yi fa waqaw bu ko defee ñu daal rot fiima ci lo xamantene ci li nga xamne ci mbir mom kese harabu mom lañ doon daw manam lañ doon daw lepp nak ñu daal mu jorat parce que ñom le fait que parce que fiñu dem parce que ki japp ne yalla fi rek la mëna ne manam ci àll ba rek la mëna ne gis nga bari na sax ay nit ño xamne pour ñom wàllu yu dëgg nit di doon foog nga nekk ci ba ah, di teju di def nangam ak nangam do ko mëna yegg ci yalla am na ñu bari loolu lañ fa ñu bari bari bari bari te loolu nag mooy te te li ñu xamul mooy ne wàllu yi nekk ci biir nit ñi di jaxasoo ak ñoom ñoo ëpp doole maqaamu fuuf ñi nga xamante ne dañoo nekk ci àll bale et cetera déjà burul woon dara la fait que yenn jaamu yàlla yi da leen di rëcc parce que dafa am jaamu yàlla yu important yoo xamante ne ku dul jaxasoo nit ñi mënoo ko def ah teg nit ñi di saafoonteeg ñoom wax ak ñoom wax ju njekk ah. di leen muuñal di dugal ci ñoom mbégte di leen wéttali et cetera yooyu nga xamante ne ay xeeti jaamu yàlla yu rëy rëy rëy la xool ah, di xool jaamu yàlla yu ci des di leen ah, di leen xool bëtug wegeel ak bëtug fonkeel ak bëtug nawet et cetera di dimbalante jullit ñi sa mbokk yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu moom moo euh, euh ñun li ñu nekkee nii maanaam di dajé ben xéet la ci xéetu bi tax nit gaaw a ci yalla loolu tax jaru xéet de bu nit foog ne mu ne way non man bu nekké sama kër tok dina mëna def ay nangami ci kar dana mëna jang nangami ki mo ëpp doola loolu ku ko foog da fekk fekk dafa xamul lan la nan la yoonu yàlla naka lay demee mais ku xam yoonu yàlla nu muy demee dana xam ne mbir mi demewut noonu bëriwaat na ay mooy yàlla ak ay musiba yoo xam ne nit ki def ciy dugg parce que dafa wéet parce que dafa wéet souvent li ëpp ku xool sa ku xool sa bopp lu ci bëri dina gis ne li ëpp ci bàkkaar yi muy def dafa fekk ne dafa wéet moo tax bu nekkon ci bir nit ñi nekk ci bir julit ñi du ko def deng mun ne arifuna fa innahum yarawna al ashyaa qa'imatan billahi aamiratun bi wujudillahi fiha wa min al awliyaai man yafna an kulli shay'in fala yashhadu ma'a allahi shay'a وولي يبقى في كل شيء ويشهد الله في كل شيء وهذا أتم وأكمل فالله تعالى لم يظهر لم يظهر المملكة إلا ليشهد فيها فالكائنات هي مرايا صفات الله ما يدنا روح ليك فمن غاب عن الكون غاب عن شهود الحق فيه فمن نصب الكائنات لتراها بل ليرى فيها ليرى فيها مولاها فالعبد يأنس بكل شيء من حيث أنه مظهر من مظاهر ربه يشاهد فيه جمال سيده فالعارفون غابوا عن شهود الخلق بشهود الحق فهم مع الخلق بالأشباح ومع الحق بالأرواح فظاهر الأمر خلق, أمر خلق وباطنه حق الله الله الله الله, الله kon ubbaat yi wax nañ la seen xaal ñoom seen xaal la dañuy bëgg di beru dem ci àll bi nekk kii buñ jaxasoo nit ñi et cetera te xamuñu ne maanaam parce que lan moo tax parce que ñoom gisuñu maanaam parce que yàlla dafa absent ci mbir yi pour ñoom yàlla nekkul ci mbir yi mbir yi yëpp ay tentation la ay matière kese lañ lii lépp day jeex ay matière kese lañ en fait wax jooju ñu naan àdduna amul solo ay yàlla rekk am solo en fait niñ ko déggee moo baaxul ñoom dañ koo déggee comme étant que ni fii loo fi gis yëpp neen la maanaam c'est un boo xamante ne baaxul boo moytuwul ci musiba la lay dugal alors que waruñu ko woon déggee noonu dañ ko waroon déggee ni ko aarif yi déggee mooy lat mooy lépp loo fi gis rek yàlla daf lay feeñu à travers loolu kon mbir moomu ci boppam neen la parce que d'ailleurs moom mooy sensu par exemple allahu akbar xam nga bu ñu ne allahu akbar yooyu ah, ah te waxuñu allahu kabir xam nga allahu akbar li mu tekk mooy yàlla màgg na mais lu tax waxuñu ne allahu kabir yàlla xam nga màgg akbar en fait forme bi euh, superlatif absolu la afalu tafdil la mooy ne voilà léegi lu tax waxuñu ne Allah est grand mais boo gisee forme bi mooy est le plus grand boo gisee euh, loolu mooy ne c'est parce que ah boo boo waxee par exemple tey même bu fekkente ne dañu gis ne fii amul leneen lu fi màgg lu dul yàlla mais sauf que mbir mu mënti doon yow waroo gis mbir moomu dangaa ngaa war a gis ne yàlla ma nekk ci mbir moomu ak yàlla ci jëmi boppam maanaam mbir moomu devant yàlla neen la maanaam lépp loo xamante ne am na rek devant yàlla neen la moom la kenn imaam al-Junayd radiyallahu anhu waa ji ne ko mu ne mu ne ah, alhamdulillahi rabbil alamin waa maanaam ah, alhamdulillahi rabbil alamin mooy sant ñeel la buur yàlla ak sax la ñeel buur yàlla bi nga xam ne moom mooy kan borom mbindeef yi ah, mu ne waa ne alhamdulillah mu ne ko mais tee nga yegg ci rabbul alamin gi borom mi ndef mu ne c'est parce que bu ma waxee ni moom maanaam borom mi ndef yi damay gis mbindeef yi te yàlla rek laa war a gis mu ne ko déedéet gisaaleel mbindeef yi parce que yàlla boo mbindeef yi du ñu dara boo leen tegee ci kanamu yàlla maanaam parce que bu ñu nekkee ci yàlla maanaam dañu nekk parce que lépp loo teg ci infini devant l'infini day day annulé wu <laughs> loo teg devant l'infini rek day annulé wu <laughs> ah voilà loolu moom moo tax mu ne kon yàlla gisal rek gisal ne yàlla moom moo màgg ba pare yàlla moom maanaam moom rek moo nekk en fait kon mbindeef yi nekkuñu fi en réalité lu dul ne yàlla moom moo feeñ à travers ñoom mais su doon ñoom ak ñoom rek duñ fi ne euh, parce que hmm, bu dul woon dara. lan la dafa am problème waaw ah. bu dul woon dara lu dul lu dul mais euh, tey par exemple bu ma ubbee robine bi xam naa ni am na benn technique bu ñu mettre en place buy tax ba bu ma ubbee robinet bi robinet bi ndox mi ndox mi tuuru bu ma ko tëjee ndox mi arrêté tey lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma ñàkk xam ñàkk xam ñàkk xam ak sama réflexion lu muy gën lu mu yéex yi lu mu tardé tardé tardé maanaam lu mu lu mu wéradi wéradi wéradi xam naa ne salle bi am na ñu ko doon tabax parce que sinon du fi ne. te xam naa ne am na ci lu mu tegu xam naa ne tey courant bi su continuer di di di tàkk nii maanaam lampe yi nii di tàkk c'est parce que dafa am. lu ko lu téye interrupteur bi luy tax ba courant bi di jaar di jàll ah contact bi interrupteur bi ci nekk noonu ah du courant bi di jàll mais sinon loolu bu teggee ko courant bi day arrêté maanaam interrupteur bi bu bu teggee ko courant bi day arrêté bu teguwaatee courant bi lan jàll lépp nag loo gis mu exister exister wul par moom. mais dañ koo amal parce que buñ ko amalul woon du am te yàllaa ko amal mais aussi lii tax mu mel nii mu mel xam nga existe benn affaire la maintenant attribut yi muy amee parce que loolu beneen affaire la tamit tey tabax bi am na bokkul ak tabax bi mel na nii parce que possibilité yi mën a am ci tabax bi danoo bari mënoon na nekk déjà ci forme bi benn ñaareel ba mooy ci couleur bi muy yor ñetteel mooy décor yi ñu ciy def ak ban xeetu couleur la ndax dañ koy peinture wala dañ koy laso am na am na wis waaw wis <laughs> ah cetera ndax dañ koy karo wala dañ koy lan dañ koy euh, euh, euh, bë dañ koy dër wala boog dañ ciy teg bois yooyu noonu waaw <laughs> et cetera yooyu yëpp ay xeeti ah mbir la yoo xam ne ñoom ñooy possibilité yi am ci ginnaaw bi ñu xamee ne nii la mel ak ndax buntu yi weñ lay doon wala këwsu lay doon wala buntu yi bu ñuy ubbeeku danuy ubbeeku maanaam ban façon la ñuy ubbeekoo ndax dangay ñëw jub ko rek mu daal di ubbeeku wala boog da ngay am loke yooyu ay caractéristiques la yoo xamante ne yooyu intéressé guñu ak tabax bi.

kon yow déjà ngay gis loolu rek benn mbir la bu mag mais beneen mbir mi moom mooy le fait que mu continuer di fi ne exemple courant bi laa gis mooy exemple bi nga xam ne moom mooy bi gën a leer ci wàllu boobu maanaam courant bi comme ni ko bis bu ñu contact bu deñee lan courant bi doon jaaral loolu tamit maanaam pour mbir mi nekk ni mu nekk maanaam comme tey ñun pour ñu continuer di exister wala rek tabax bi pour mu continuer di fi nek il faut que manam euh euh courant bi koy dawal manam hein manam ka ko fay taxawal teyiko ci caractéristique yoyu mu baña deñ parce que suko baye bàyyee day deñ suko baye bàyyee day deñ parce que xam nga mbir existe ben affaire la mais saxal ko ci mu continuer di exister lolu tamit benen affaire la. <laughs> amal mbir ak ak ak ak ak ak téye ko entretien bi mu tey mu bañ mu bañ fa jóge lolu ñaar yoy yooyu ñu le <laughs> am nañ différence mbindeef yi yàlla moo leen amal ci cosaan mais le fait que ñuy continuer di exister la mu laaj loolu beneen affaire la bo xam yalla mo continuer diko dox tous les jours ba pare bis bu ne mu am lu mu feeñal kulla yawmin huwa fi sha'n lolu nak loolu kuy ku kuy am approche boobu ci mbir yi day gis ne mbir yi en fait dañoo ñàkk ci cosaan yàllaa leen amal téye leen ci am bis bu leen bàyyee ñu delluwaat ci ñàkk bu leen bàyyee rek ñu delluwaat ci ñàkk waaw <laughs> waaw parce que euh, am na benn exemple bu jël ñëw sama xel léegi employé bi bu ma dee patron maa ko jël muy may liggéeyal le fait que mu nekk ma embauché ko loolu benn affaire la mais le fait que ma téye ko ci entreprise bi muy continuer di fayeeku loolu beneen affaire la <laughs> ñaar ñaaree duñu benn te bu ma ko dàqee dootul nekk ci salarié day delluwaat nekkat chômeur léegi après wuti jiwaat <laughs> mais ak yàlla loolu amul parce que ñëpp dañoo dépendant ci moom te duñu deñ dépendant ci moom baxna lolou nak mom lay wax ni muna arifuna yi fa innahum li wér bor mu allah amma wa amma dal al arifuna arifuna yi ñi xam yàlla nak fa innahum li wér bor mu ñom yaraw na dañuy gis al ashyaa mbiri qa'imatun di aji taxaw billahi ci yàlla yàlla mom manam par yàlla lañ taxawe yalla ki tax ñu taxaw motax moy al qayyum qayyum moy ki nga xamne parce que qa'im dafa am qa'im am xawaam am qayyum qayyum euh, forme la boo xamante ne mubaalaxa la mooy extrapolation ci xeetu waxin wi ak exagération voilà ci xeetu waxin wi mooy lan mooy ki nga xam ne moom moo taxawu boppam déjà parce que yàlla rek mooy ki nga xam ne soxlawul leneen pour ne leneen kenn ak wala keneen ku dul yàlla wala lu dul yàlla da ngaa soxla lenn pour nekk non seulement da nga soxla lenn pour ne mais da nga soxla leneen lu indépendant ci yow pour continuer di ne <laughs> ah oui <laughs> par exemple yàlla bu la bindoon rek te da nga soxla lieu soo amul woon lieu boo nekk sa existence day problématique du dëgg mhm. soxla aussi loo xamante ne day extérieur ci yow lu lay alimenter maanaam nit ki day soxla par exemple di lekk di naan tëdd et cetera yow da koy soxla dans le cas contraire rek day dañ <coughs> dootu fi nekkati <coughs> te lépp nag loolu la soxlaa lool lépp loo leen gis lu exister lu ne dafa soxla ay circonstances yu koy maintenir ci existence am ak ay conditions yu ko ci maintenir te yooyu nag yàlla moo ci taxawu mbindeef ay milliards ak ay milliards ci ay conditions ñoo daje pour que tout simplement dund mën a exister ci kaw suuf par exemple sa qui veut dire que ni yow bu ñu xoolee ñun ñëpp am na loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk maanaam parce que yàlla may nañu ñuy dund ci kaw suuf am na yàlla yokk fan yi yaatal wërsëg yi dolli ñu xéewal ci zahir ak ci baatin ba pare may ñu defal ñu ngëneelam ak ngërëmam ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam léegi euh, loolu nga xam ne ñun ñoo ko bokk am na ci benn mbir boo xamante ne dañ koo soxla mooy nekk ci kaw foofu parce que bu nekkee feneen dañuy dee loolu mooy benn te loolu ñu bokk nekkandoo soxlaandoo ko te nekk fii ci ay ngelaw ah ci am ndox ci ci mën di noyyi ah gaz gaz carbonique bi affaire yi renouvelé wu yaa ngi dégg ngay am dioxygène bi manam ngelaw li di pur ngay soxla yenen ak yenen ak yo xamantene rek dafa dépendre rek sur le fait que suuf si nekk ci orbite bi mu nek par rapport ak jant bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu tax nga war fee man a ne yooyu nag boo ko xoolee doo gis leneen lu dul ni yàlla moo fi nekk di jàpp ci mbir mi saa ne te du tàyyi abadan allah allah du sonn ah du tàyyi te loolu du dara ci moom boo ko boolee nag kenn ku ci nekk yàlla di la wërsëgalal fa nga ne ak ni nit ñi bare boo ci booleeg le fait que nit ñi li ñuy bëri bëri bëri bëri waxuma la animaux yooyu nit ñi rek déjà xar kanam yi wu dañoo wute fokk mu am tuuti différence ak nit ñi li ñuy bari bari yépp ah. et cetera yooyu yëpp moo lay wan ne la yàlla kenn ku ci nekk kon mu ngi def maanaam kon li ngay gis mooy ne am damay gis ne ndekete. bu ma xoolee kii damay gis ne yàlla moo ko melal ni maanaam kon yàlla am na maanaam nu mu feeñu ba pare daf ko ràng ay turam ak melam yoo xamante ne daf ma ko feeñoo rek juste à travers moom ma xool kii gis tamit beneen parce que déjà bu ma xooloon ci xar kanam yi rek bokkuñu deru yaram yi bokkuñu et cetera maanaam nga dem dem ah ci même famille nga xool jikko yi kenn ku ci nekk yàlla am lu muy def ci yow perpétuellement sa xol a ngi yëngatu pour di di di baat ngay continuer di dund et cetera et cetera et cetera boo ci booleeg nag xéewal yi yàlla yi sotti ci nit ñi te ñu wuute ba nga xam ne kenn ku ci nekk di nga yëg quand même ni yàlla defal na la benn xeetu xéewal boo xamante ne bokkul ak yi mu defal ñi ci des ñëpp buñ leen boolee kooku du dañ di gis yàlla ci mbir mi moo tax kon ki xam loolu mooy aarif xam nga loolu la ñoo xam ne la mooy al fahmu al maarifa mooy al fahmu boobu mooy al maarifa ñooñu kon ñoom dañuy gis ne yàlla day taxaw ba pare amiratu mbir yëpp dañuy dund dañoo maanaam amira mooy euh, euh, mooy lu ñu dëkke la mooy at mooy dafa am lu fa dëkke te mooy lan bi wujudillaahi ci amuk yàlla fiihaa ci mbir moomu yàlla nekk gi mu nekk ci biir mbir moomu maanaam loolu dina ko développer dina ko wax léegi mu ne wa minal awliya yi am na ci wàllu yi man ñoo koo xam ne moom maanaam mooy ñoo xam ne groupe boo xam ne yaf naa dafa jeex an kulli shay'in wëlif bépp mbir fala yashhadu du jàkkaarloog ma allah ànd ak yàlla shay'an dara am na ci wàllu yi ñoo xam te ne ñoom lu ñu gis yàlla dong la ñuy gis maanaam ñoom comme ñun ni ñuy gisee ni am na lii matériel nangam nangam sans masque ñoom duñ gis loolu yàlla rek la ñuy gis maanaam ce qui fait kon lu dul yàlla neen la ñoom noonu lañ koy noonu lañ koy dunde lu dul yàlla neen la ñoom noonu lañ koy dunde mooy ñoom duñu gis lu dul ne yàlla moom mooy comme yàlla mooy az-zahir mooy ci feeñ ci bépp mbir mu feeñ mooy al-batin mooy ci nëbbatu ci bépp mbir mu nëbbatu hein groupe bii nii euh, euh, am na wa waliyun am na waliyu boo xam ne yabqa day des fii kulli shay'in ci bépp mbir wa yashhadu muy seede allah bur yàlla fii kulli shay'in ci bépp mbir maanaam am na wàllu yu boo xamante ne moom te par contre noonu la mel moom ñoom groupe yoo xam ne ñoom noonu lañ mel mooy ñooñu nag ñoo gën a kawe tuuti mooy ne ñoom dañuy nekk ci mbir yi dinañu gis mbir yi ba pare dañuy sax di lan di jàkkaarloog yàlla ci mbir yi maanaam ñoom kon duñ ne mbir yi duñ leen gisee nii maanaam ñoom lu dul yàlla neen la ci wàllu googu ni ñu koy comprendre mooy ne yàlla moo leen amal ba pare maanaam le fait mu amal leen loolu beneen mbir la bu yokk ci amuk yàlla kese. parce que amuk yàlla benn affaire la mais le fait yàlla amalaat mbindeef fii beneen affaire la parce que bu amoon rek te amalul kenn duñ ko xam. mais la fait que mu amalaat ñeneen maanaam comme ñoom dañuy gis yàlla di di gisaale mbir yi di gis yàlla ci biir mbir yi moo tax mu a wa hada bii atam moo gën a mat wa <laughs> moo gën a mat tamit atam mooy mooy li gën a mottali moo gën a mottali wa akmal te moo gën a mat atam mooy complet plus complet wa akmal plus parfait xam nga euh, gis nga Euh, lii li koy kii mooy sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi ko yonent bi sallallahu alayhi ne maanaam mooy histoire boobu mooy biñ ko jiiñee ne dafa jàdd yoon et cetera coow li bari ba yàlla wàcce aaya alquran pour seetal deram histoire bu siiw boobu Seydina Abubakar radiyallahu anhu dañu ko jugal nga gërëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom mune man duma geureum kudul yàlla lasku illa allah ah sayyidat Aïcha radiyallahu mais boo xoolee histoire boobu di nga gis ne ñaari maqaama yu wuute ñoo ne maqaama bu sayyidatu Aïcha radiyallahu nga xam ne yàlla rek la gis moo tax rek lay gërëm ak maqaama bi ko gën a te gën ko mottali mooy bu mott moo bu Seydina Abubakar radiyallahu anhu dëgg la ni danga war a am ñaari xol loolu mooy événement bi affaire bi lii la maam Seydina Abubakar radiyallahu li mu ko doon expliquer foofu mooy ñaari mbir moo am mooy ne devant situation boo war a boo xamante ne yàlla dafa jaarale parce que yàlla buy def mbir day am ay sabab sabab bi nga xamante ne moom la yàlla def mooy première bi yow li ngay gis mooy ne yàlla moo ko def kon sa xol loolu lay gis mbir yëpp ci yàlla la jóge jógewul feneen te jógewul ci leneen de telle sorte que fi sabab bi ko yàlla jaarale moo xam nit la moo xam leneen la moom munul woon bañ affaire boobu parce que yàlla moo ko obligé jaarale ko foofu yaa ngi dégg kon yàlla moo fees ci xol moom moo ko amal kon loolu la ko Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam loolu loolu benn mbir la bu ñu war a gis buntu kon loolu moom mooy benn mbir bi mu war bi nga war a gis mu am ñaareelu mbir bi nga war a gis ci biir loolu mooy ne charia daf lay imposer tout de même ci nga sant ki nga xamante ne moom la jaarale ak fi nga xam ne moom la jaarale mbir mi foofu comme li xadisu Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu nekk sunan imam Abu Dawud ak ak Musnad imam Ahmad rahmatullahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathira wa man lam yashkuril naasa lam yashkurillah ku santul lu tuuti du sant lu rëy te ku santul nit sant yàlla maanaam mooy sant yàlla bala moo mat lay tekki tekkiwul ne ku santul nit ki rek du sant yàlla abadan loolu même même même kii sax da koy feeñal maanaam euh, xes le concret manam réalité bi day wone ni lolou mbir mi demee non mais limi tek moy sante bala mo mat ba mat seuk moto alcorane alxuraan ne anishkur wala wala day ko sant ma geureum ma gërëmal say wajur yaangi de kon yoyu ay mbir la yo xamantene manam kon borom subhanahu wa ta'ala daf lay wax la man kon nga wara gis mbir mi ci deux volets bobu deux volets yoyu ben volet bu ñëk moy lan moy sa xol du gis lulul ne yalla mo def te moom rek la ñuy sant loolu mooy réalité mooy ci biir biir bi nag mooy fi yàlla jaarale mbir mi kooku tamit sharia moo lay imposer nga sant ko boobu maqaama nag moo gën a mat moo gën a ko te moo gën a mat boobu la Seydina Abubakar radiyallahu anhu doon tegtal Sayyidata Aïcha radiyallahu anha naan ko jógal nga sant yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mu ne de du sant ku dul yàlla parce en fait moom li mu gis rek mooy yàllaa ko setal yàlla rek a fi nekk nangam moom lay sant boobu dafa jeex ci yàlla gisutul leneen lu dul yàlla waaye Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi ko raw te yaakaar naa ñaari nit duñ ci werante <laughs> moom dafa gis lu gën a mat mu mu mu mu gaaw tegtal ko ko mais Sayyidat Aisha gisul woon loolu maqaama gi voilà loolu moom moo tax tamit maanaam munoote maanaam loolu tamit doo di wax ne non man de toute façon faalewuma kenn nangam yàlla rek ko yor ñëpp nangam loolu xam nga dëgg la mais charia da lay imposer nga faale tamit ñeneen ñi te wolof dafay wax tamit benn wax bu am solo sax ndeysaan foo yëkkati sa benn loxo bi ne man faalewuma kenn yëkkatil beneen bi ne kenn faalewuma <laughs> <laughs> yàlla parce que yàlla sama borom subhanahu wa lu le fait que sabab yi nekk ay milliards milliards wala ñu infini mu tànn kenn kese jaarale ci moom sabab boobu mooy wane ni dangaa war a gërëm kooku parce que yàlla daf laa feeñu à travers kooku te yow dangaa war a kooku dangaa war a ràngoo maanaam loolu moo tax ah, ci turu yàlla bi nga xam ne moom mooy ashakur moom la yàlla feeñoo à travers kooku loolu lay tegtale maanam kon yow du ne moom nga gis en tant que mbindeef mais da ngay gis yàlla mi feeñ à travers moom ci loolu ba nga war koo sant moom da <laughs> yenent bi la sant rek non non yàlla la sant rek <laughs> waaw parce que moom foofu la tolloon moment boobu voilà <laughs> dégg nga mu ne kon ah, fallaahu bur yàlla taala aji kaw ji lam yazhar lam yuzhir lam yuzhir feeñalul al mamlakata maanaam ne mamlaka mooy nguuram ji mooy moomeelam ji yàlla feeñalu ko illaa lu dul li yushhida ngir ñu mën a jàkkaarloog moom fiihaa ci nekkteef kon yàlla bu feeñalee nekkteef yi lan moo tax pour nga gis yàlla pour pour ñu di ko gis moom maanaam gis màggaayam kàttanam man-manam sañ-sañam ak hmm. et cetera meloom yi comme ni ñu ko développé bi pa euh, sànq falka inaatu nekkteef yi hiya ñoom miraya ñoom ñooy seetu yi astifaat melo yàlla yi mooy li doon wax sànq lépp loo gis rek le fait que nekk na nga ne ah kon yàlla dafa feeñal melo nekkteef mooy al wujud existence ci mbir moomu loo gis tamit muy dund nga ne yàlla dafa feeñal melo dundam ci moom à moom maanaam lii dund gi muy dund moo may tegtal dundug yàlla gu mat gi voilà nga gis loo gis koo gis muy gis nga laa ah, kon yàlla moom tamit ndeket moom mu ngi gis gisug yàlla la may tegtale ndax kii gisam gi ci gisug yàlla googu la ko yàlla ràngee ak meloom ba pare tamit gis bi mu may gis day tegtale ne yàllaa ngi may gis mm-hmm. et cetera maanaam nga topp loolu ci mboolem melo yi baax gi mu baax day wane daa ah, yàlla moo ma feeñu ci mbaaxam ci teraangam ci giiwam ci euh, et cetera yàllaa ma feeñu à travers kii soo gisee koo xam ne dafa laa daf lay indi di la xataal dafa laa bañ da lay sonal da lay kii nga ne yàlla mooy may feeñu ci jalaale maanaam melo jalaale mooy turam yooyu nga xam ne ay qahaar jabbaar mutakabbir ah et cetera tur yooyu noonu ah ay muntaqim yooyu moom la ma moom la feeñoo moom la ma feeñoo à ci looloo tax nit ki xam yàlla du gis àdduna bi lu dul day gis yàlla kese ci mbir yi yàlla lay gis léegi loolu dina dina ci ñëw ci beneen euh, xikma bi nga xam ne moom moo teg insha allah dégg mu ne kon nag fa man xaaba képp koo xam ne da ngaa fàddu anil kaw ni wëllif nekk teef yi xaaba day fàddu an suhudil xaqi wëllif seedeeg buur yàlla biy dëgg fii ci mbir moom ko xamantene dafa dafa toog bu ni gisatul àdduna bi mais yalla mi nek ci aduna bi te dëkki du ko gis maanaam melo yi parce que wax na la la kon du jëm ji mais melo yi la du zaat du si du son essence la nek ci aduna bi mais ak ay meloom la fi nekk hmm? moo tax ki nga xamantene mom dem na ba mel non soxlu wul di ay dugg wa ay euh, di yeen yo soxlaatu ko parce que mom mi ngeek yalla fépp parce que xalwa xam nga pour lan xalwa xalwa moy lan moy retraite hein retraite spirituelle moy beru moy beru pour meuna fek pour meun di ak sa borom loolu moy xalwa damay beru pour weto kan sa borom wa bu fekente ne man fuma nek yep mi ngi fa mang koy gis mang manam kon jaratul may ut place bu spécial pour di ak mom foofu parce que maa ngi ak moom hmm? maanaam parce que fu ma toll maa ngi wéet ak moom ànd ak ne maanaam fu ma toll maa ngi sama xalwa ànd ak ne nit ñaa ngi fi ànd ak ne mbir yépp a ngi fi mais man maa ngi sama biir xalwa en même temps loolu moo nekkoon xaalu saxaaba yi radiyallahu anhum loolu tax tax toxaluñ ne par exemple ay xadiis yu wan na wala saxaaba yi daan nañ dugg xalwaak yooyu parce que loolu la mooy xalwatuhum fii jalwatihim maanaam seen xalwa mi ngi woon ci le fait ñu nekkoon ci biir nit ñi nii dégg te loolu tamit moom mooy xaalu waa tariqa bi moo tax euh, rabba bila xalwatin ashabuhu alana hatta istaqamu fa ya lillahi man xaahu moom sëñ Babacar si wax radiyallahu anhu Seyd Ahmad Tijaan radiyallahu anhu day nit ñi taalibe yi ci lu àndul ak xalwa maanaam xalwa du charte pour nit ki am dara ci ay maqaama bu mën a doon nag dugg xalwa du ci parce que lu tax parce que moom no maanaam xaalu saxaaba yi la leen ràng maanaam ci la leen di yare xatta mu bañ ñu coow coowaaral te loolu mooy objectif bi xayru ma taalabtahu mi ah ma taalabtahu minhu huwa ma taalabahu minka li gën ci li ngay sàkku ci yàlla mooy yàlla li mu sàkku ci yow te mooy njub yàlla li mu bëgg ci yow mooy dani la na nga jub moom rek loolu la bëgg loolu rek la la laaj yow nag soo demee ba di ko ñaan ba munoo ñàkk ñaan ñaan ko li nga xam ne moom mooy moom li mu sàkku ci yow yàlla defal la ko ah mooy sirru bi nekk suratul Fatiha ginnaaw yëpp benn ñaan iyyaka na ihdina siratal mustaqim voilà dégg nga kon ah allah allah wama nasaba dégg nga sampul yàlla sampul alkainaat nekkitee fi li taraaxaa ngir ngay gis nekkitee fi nii maanaam di xool xam nga bëri na am na ni ñoo soo mais ñii ñoo aay affaire bi ñu defar ba mu mel nii nanga maanaam di yéemu ci affaire boobu rek nekk ci contempler mbindeef mi yow déedéet te yow da ngaa waroon a gis màggug yàlla à travers loolu yàlla ràng gi mu ràng par exemple ki defar pont bi ba ba pont bi yéem la ki ko defar yàlla yow yow dangaa war a gis ne comme moom moo man lii te yàlla rek ko ko ràng mu mën ko maanaam yàlla moo ko maanaam moo ko ràng kàttan gi xam-xam bi san et cetera lépp lu ci aju ba mu ba mu defar ko loolu tax nag maanaam boo gisee mais bul gis rek maanaam bi yéemu rek ci mbindeef rek comme yow mais yéemul ci ki ko defar moom segam mbindeef bi moo defar lii mais ki ko defar nag ki defar kooku defar lii <laughs> da war a maanaam da ngay jéggi affaire bi dégg loolu moom la proverbe boobu di wax ci ci ci kii euh, léeg-léeg ma di ko tudd ah, mooy ne euh, bu fekkente ne baaraam bi day joxoñ weer wi ki ñàkk xel moom day nekk di xool baaraam bi au lieu xool weer wi <laughs> waaw baaraam bi dañ ko fay tegoon pour wane weer bi léegi nag au lieu au lieu nga gis ne ndekete baaraam bi bu ma ko toppee maanaam direction bi daf maa war a yóbbu ci ma gis weer bi <laughs> ki yaakaar moom moom baaraam bi rek lay nekk di xool <laughs> alors que daf laa waroon yóbbu ci nga gis kan maanaam nekkteef yëpp nekkuñu fi àdduna bi nekkuñu fi lu dul yàlla tegu ko fi lu dul xam nga multitude yi xam nga le fait que affaire yi bëri parce que tey bu ñu ñaata espèce mbir ñoo existé daanaka xel du ko takk <coughs> ay xeet waxuma la ay élément de xel du ko takk buñ jëloon monde animal yi rek ñaata espèce lañ xel mënu ko takk waxuma laa nag monde végétal après yeneen yi nga xam ne ay matériel la yu ñu defar yu ñu kii nangam nangam yi amoon amatuñu et cetera yii multi multitude boobu multiplicité bi yàlla daf ko créer ngir yow bu fekkente ne ah, dalaa xañ nga gis ko ci lii nga mën koo gis ci leneen maanaam adduna bi yëpp yàlla def ba pare tamit le fait que mu bëri moo lay wan ne yàlla mën na lu ne ba pare du defar mbir ba pare defaraat ko allah

dans la même fleuve ah benn fleuve bi dex gi mënoo cee sangu ñaari yoon parce que saa su nekk la ndox mi day renouveler nit ki tamit noonu la nit ki tey doo ko gis ba pare di sàkk ko saa yoo ko gisee xamal ni entre temps yow boo xefee xippi rek xamal ni yàlla soppi na ci moom ay mbir mais loolu dans le temps ngay gis ni kii kat màgget na léegi wala kii màgg na léegi wala kii léegi soppeeku na di kii kañ la fi mel nii nangam nangam c'est parce que da nga koo gëj a gis <laughs> mais ñi yàgg moom di ko gis tous les jours duñ gis duñ gaaw di soppeeku ko ah, ah non léegi grand la boo ko gisee na ngay ngay laaj xale ah wala ah, léegi jànqale de boo ko gisee léegi parce que dañ kaa gëj a gis. Men an reyalite, nye pou nan lanymel. Amou ken nou kouti yale ki, bopare, ge gisko, bopare gisak. Lòl tamit, moun lalè. Man kon yale sam pou lèn, loul pou nye gis moun, ki bopon. Dengè, bal, dengè, kon yale sam pou lèn pou nye gis, bal li fènek mwen, li tak mwen sam pou lèn, mwen adounè bi, li yura nye gis fie ha, ki bin miryo yon moun la ha, ki kame mwen yon boron moun. Pan atan moun. fal abdu jaam nag yanas day weteliko bi kulli shay'in ci bépp mbir min xaysu ci anam gi nga xamne annahu naka mbir mom mazharun feñ way la min mazahiri ci feñ way rabbuhu borom subhanahu wa ta'ala jam bi non lay def manam day xol mbir mi di di weteliko mbir mi pa parce que mbir mi fi ne parce que nit ñi tamit ay xet lañ manam ay xet lañ tamit ci groupe bobu dafa am ño xamantene buñu amé ñu par exemple buñu gis buñu amé ñoom xéewal gi ci boppam la ñuy gis ak bànneexu gi ñu ci bànneexu jeex na ah lii de neex na lii de rafet na lii de nangam ak nangam xi mbir mi rek la gis ak bànneexu gi ñu ci bànneexu jeex na loolu moom mooy niveau bi gën a baax mu am beneen niveau boo xamante ne moom mooy ki nit ki day gis xéewal gi waaye day gis ne en réalité ki koy xéewal lay gis maanaam day gis xéewal mais day gisaale ki xéewal mooy yàlla ah moom ci loolu lay kontaan ci loolu lay bëgg ci loolu lay bànneexoo ne ah li day xéewalu yàlla la ce qui fait ni moom day gis xéewal gi mais xéewal gi day rëy ci moom lu tax ci ki mu jóge la coono gu mu mën a daj problème gu mu mën a am métit gu mu mën a daj naqar gu mën a yegsi ci moom moom day gis ne ah ci ki nga xam ne mooy soppandiku ci ay mbiram moom moo ko def mooy ki nga xam ne mooy boroomam moo ko teg lii te loolu benn la ci xeeti xéewal yi benn la ci xeeti xéewal yi tamit mu am ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy beneen niveau bi mooy ñoom dañuy gis mbir mi ba nga xam ne tellement yàlla day feeñ ci mbir mu ne ba nga xamante ne ñoom yàlla ci boppam lañuy gis yi ci des yëpp nekk nen ñooñu nag moom lay wax ne mu ne ah, moom lay wax ne jaam boobu day wéttalikoo kon yàlla ci bépp mbir ndax ne day gis ne mbir mom du dara lu dul way ci way borom subhanahu wa ta'ala yu shahidu day jakarlo fi ci mbir mom jamaala taruk sayyidu borom manam sangam moy borom subhanahu wa ta'ala fal aarifuuna way nandte yi moy ñi xam yàlla deug ghabu dano fàddu an shuhudil khalqi walif sede minde fi bi shuhudil khalqi ci sababu sede gi ñi sede maanaam témoigner contempler bi ñu contempler yàlla bi nga xam ne mooy dëgg ñoom moom yàlla la ñuy contempler mooy tax du ñu mën a di moom la ñuy témoigner maanaam ah moo tax du ñu gis leneen li ci des parce que xam nga euh, euh, euh, xool mbir ak gis ko du benn waaw Ah, wa taraahum yanzuruna ilayka summa laa yubsiruna <laughs> alquran wax ni yéefir yi loolu lañuy def mais ni yéefir yi dañu lay xool mais gisuñu la <laughs> yi xool yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais gis mais loolu xam nga day am nit ki dina di xool fii xool fii en réalité gisu ko gisul nit ki day ku ku nekk ci wetam day foog ne moom la fixé li affaire bii la fixé di ko xool mais gisu ko moom ndax xelama nga feneen ah loolu moo tax xool mbir ak gis ko du bokkul mi nit ñi nag nit ki nag ah ki xam yàlla dëgg day xool lan mbir yi mais du leen gis yàlla lay gis ndax yàlla mooy feeñ à travers mbir yooyu mu am ci nag ay niveau am ñoo xamante ne bu ñu gisee mbir mi ba analyser la ca ginnaaw ci la ñuy doog a gis yàlla ci ginnaaw am ñoo xamante ne bu ñu gisee mbir mi bu ñu koy gis di gisandoo yàlla ak mbir mi am ñoo xam ne nag yàlla lañuy njëkk a gis après la ñuy doog a gis mbir moom <laughs> am ñoo xam ne nag ñoom du ñu gis leneen lu dul yàlla <laughs> foofu moo tax ñoom nitu yàlla yooyu aarif billaahi mooy mooy ñu naan dëgg ñu comprendre dëgg ma al xalqi ñi ngi ànd ak mbindeef yëpp bil ashbaax ak seen jëmm yi seen yaram yi waaye wa ma al xaq ñi ngi ànd ak yàlla bi dëgg bil arwaax ak seen ruux yi euh, lii si Ahmad ibn Mubarak wax euh, rahimahullah radiyallahu anhu muy ne sëriñ bi moom Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu dama doon nekk ak moom daf ma daan wax baat bi daf ma daan wax ne ma nitu yàlla dëgg-dëgg yi yu mag ñi ñoom en fait seen biir seen biti amul solo seen biir a am solo parce que ñoom yàlla la ñuy gis saa su ne yàlla la ñuy nekkal mais loolu nee na mais maa ngi koy comprendre bu benn jour da ba ko doon laaj ay laaj yu xóotu xóot ci seen xam-xam yooyu ñoom fekk boobu mu ngi gor ay maanaam mu ngi gor ay ay ci e, e, garab ni ak di ko yet di yett bant yeeg yooyu mais ci biir loolu yëpp mu may tontu tontu yoo xam ne mais du ci sax dute ànd ak mi ngi préoccupé wu ci di defar affaire bi di yett di gor di mm. <laughs> maanaam ci loo xamante ne arrêté wul benn yoon pour tontu ndax foog mu laaj ci réflexion déedéet mais <laughs> dafa nekk ci laa comprendre ni ñoom dañu nekk ak yàlla <laughs> ci biir ànd ak ni ci biti la ñuy nekk nit ñi. moo tax fa zahirul amri li feeñ ci mbir yi loolu comprendre ko mbir yi li ci feeñ xalqun mbindeef la waaye wa baatinuhu li nëbbatu mooy secret bi nekk ci ginnaaw liy doxal mbir yi la la nekk ca biir. xaqun mooy yàlla bi dëgg loolu soo comprendre rek ah, ah bii ñu bii nga xamante ne ci lañ jëm ni ah, xegma bi moom ak xegma bi ko weesu dañoo nuroo dañoo daanaka maanaam dañoo complémentaire moo tax ñu gis ko léegi incha allah parce que bëriwul tamit maanaam dalay leeralal wax yooyu noonu hikma bob moy abaaxa laka an tanzura ma fil mukawanaati wa ma adina laka an taqifa ma maa zawaatil mukawanaati abaaxa daganal na laka ñel la mum yàlla an tanzura ci ngay xol ma li nga xamne fil mukawanaati mo nek ci mi ñu nekkal moy nek am amali moy être yi existence yi han dala ko daganalal waaye nag wama azina la waaye joxula ndigal maanaam autorisation laka ñeel la an fa ci ngay taxaw maa ànd ak zawaat jëmmi al mukawwanaat yi ñu nekkal maanaam yàlla permettre na la nga ngay xool mbir mi mais permettre la ngay taxaw ci mbir mi rek di ci maanaam euh, euh, euh, maanaam nga jox ko importance boobu permettre la loolu wa bo gisé ben mbir bu la yëm ni permettre na la nga gis nga xol mbir mom mais permettre la nga ngay nek di di euh di yëmu ci lolu rek manam melni hein di tarder sa bop ci mbir mom wala di ci tarder sa bop lolu permettre la ko qala ta'ala qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'a al-khalq thumma yunshi'u an-nash'ata al-akhirah inna allaha ala kulli shay'in qadir qul unzuru maadha fi samaawaati wal ard sa borom nee na qaala wax na taala aji kawe ji buur yàlla nee na qul waxal ne yow sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam siiru daw leen dox leen tukki leen fil ardi ci kaw suuf si wala ah tukki leen ci suuf si fanzuru te ngeen xool kayfa ana naka allah maanaam kon waxu la ngay def tourisme di dem oui dama dem sangam dem sangam euh, j'ai beaucoup voyagé j'ai vu. Euh, hein. j'ai vu les TGV. <laughs> ah ah. tourisme bobu yalla moko wax nañ koy def. di dox ci kaw mais pour l'Allah, est-ce que pour dem rek di bànneexu la ak dem rek pour pour pour pour pour oui dama mon dama doon dem Rome mais bon je me suis dit que il faut que je fasse escale à Nice euh, pour mën euh, visiter un petit peu hein? voilà voilà <laughs> la Côte d'Azur <laughs> hein affaire du lolé hein ak di dem di xool pour pour pour ah non maanaam yàlla dafa per dafa digale pour ñuy tukki mu ne fanzuru gis nga te na ngeen xool boo leen dee tukki na ngeen li tax ma waxal moo ne faago fanzuru kon xool leen kay fa ana naka bada ala tàmbale alxalqa mbindee fi yàlla nan la tàmbale mbiri maanaam kon tourisme yooyu noonu waruñu def rek naan. par exemple dem na Égypte dem na gis pyramide yi pour pour gis pyramide kese mais da ngaa wara gis ne yalla xolal ni mu jaarale histoire mbir mi da ngay gis tamit da ngay jàngat da ngay jangat ay leçon ci mbir mi mais dem rek nan j'ai visité pour pour pour lan en réalité gis pyramide kese en tant que fait lolu jariñu dara ah. bu fekkente ne ah, bu fekkente ne amuloo jangat mo ci jëlee yow yak khalis rek la gëna a Hmm? dégg nga su ma topp allahu bur yàlla yun si moom mooy sos an nash ata sos al bu mujj bi ginnaaw lii yépp nag yàlla moom mooy defaraat lépp lu mujj li maanaam bu alaxira mooy dundalaat nit ñi et cetera wala boog mujjee ñëw moo leen melal ni ñu mel inna allah li wér ba wér mooy bur yàlla ala kulli shay'in ci bépp mbir bu dul dara doo dara bu ñu dindi doon yàlla lépp tamit xam nañ ni lépp loo leen gis xadirun ku ko man la te am ci sañ-sañ kon loolu la maanaam yow kon yow da ngay gis ne boo xoolee tourisme boobu daf laa war a jàngal ne yàlla ndekete mën na lu ne kon yow da ngaa war a gis kàttanu yàlla ak sañ-sañam ak man-manam ci loolu ngay gis Nous mu une une génération yi fa dindi génération mais division et patrimoine oui j'ai visité le patrimoine culturel euh, de qui euh, telle ville xam nga là euh, lanu UNESCO la amna voilà <laughs> voilà zone qui voilà xam j'ai fait les États-Unis j'ai fait non affaire bi affaire bi <laughs> dafa am lu par exemple boo demee États-Unis gis ne ah États-Unis ñoom kat il y a euh, nangami siècle kat ñoom du ñu woon dara mais tey ak puissance bi ñu am nangam ak nangam loolu dañ ciy gis kàttanu yàlla ne moom moo tàmbali xoola États-Unis fi mu tàmbalee ak fi mu yegg si tey maa ngi lay jàngat mais ñëw rek ah. <laughs> ah. waaw mais xam nga li nga gis. li nga gis bokkul ak li nga xam ne da koy liir kese. mooy lan. dégg naa gis naa bopp. voilà du benn ma ngoog voilà. voilà loolu laa ko wax voilà. voilà li ma gis ak li ma dégg du benn non ba pare am na beneen affaire bu ci am. mooy euh, kii bi am maanaam divergence culturelle bi nga xam ne moom mooy am ah diversification culturelle bi nga xam ne moom mooy am ci biir. Euh, booy booy tukki ni nga koy mën a découvrir ak ak jariñ li ngay gis tamit maanaam li ngay mën a jariñoo ci yeneen peuple yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen. waaw voilà exactement te kenn ku ci nekk bokkul ak ni mu feeñoo ci yow. ba pare kenn ku ci nekk dafa am lu mu kii mooy euh, mooy li taarafu boobu bu ko defee ngeen xamante voilà mooy diversité culturelle voilà nga gis voilà kenn ku ci nekk nga xam ah voilà nga xam li mu man nga xam ni mu kii am na loo xamante ne buñ buñ ca yeggee rek chinois bi moom moo ci man ñëpp am loo xam ne buñ ca yeggee wolof bee ci man am yoo xam ne buñ ci yeggee tubaab bee man et cetera maanaam am na mbir yu baree bare ak ñu ko gën a man mën-mënu ah? wolof bi dañ cee excès ah mën-mënu wolof bi ok ah déet dafa ndànk ah mais yéen bëriwul mbir yoo xamante ne nit ñi lu bëri bëri amee problème dañ naan ah xaaral ma woote Sénégal ah day am bëri na voilà kon kay mooy wane ne am na lu mu man moom <laughs> waaw ah kon nag nañu dellu ci kii parce que am na yoo xam ne tubaab bi mënu koo faj. loolu duñ koy wax. waaw xaaral ma dellu fa ma jóge hmm. parce que lii tubaab bi mënu koo faj. <laughs> ah kay bari na ah. waaw waaw déet am na non am na yoo xam ne moom loo fàtte fàtte foo ko jógee dana la ko fàtte <laughs> am na loo. <laughs> ah non mais mais waaw mais dafa am yoo xam ne loo fàtte fàtte suñu jure mbir yooyu dina la ko fàttal dana la ah saa nag moom c'est des réalités yoo xam ne tubaab bi xamu ko dem naa ci ci dem naa dem naa ci docteur bi docteur bi xool na xool xool nee na gisul sama feebar te man kat dégg maa ngi yëg nangam ak nangam ak nangam ah waaw c'est-à-dire que euh, complémentarité dafa am ci biir ah wuute yi nit ñi wuute mais warul nekk loo xam ne ay rivalité lay indi mais complémentarité plutôt wala ay ay ay ay xeebaate doyadalaate et cetera hmm? dégg nga sootul Ankabut la aaya léegi beneen aaya bi mu nekk sourate Yunus aaya 101 mooy xul waxal ne unzuru xool leen maaza ana lan mooy li nga xam ne fi samawaati moo nekk ci asamaan maanaam maaza mooy yàlla gi nga xam ne <laughs> fi samawaati moo nekk ci asamaan wala ard ak suuf si booy xool mbir yi da xool yàlla mi ne ci biir ah kon loolu mom moy yàlla waxula rek ngay tok di contempler nature bi ni rek di xol nan oh que c'est beau mais c'est beau mais daf laa war a tal taru yàlla ak katanam man manam man man et cetera deng munafa min al khalq man yanzuru ila al kawn wa yahjubuhu an al mukawwin fa hada huwa al maqsuudu bi an laa yaqifu ma'a zawaati al mukawwanaati li anna al mukawwanaati bi nisbati lahu xijaab ومن الخلق من يرى الله تعالى هو الوجود فلا يضره نظره الى الكون فمن الخلق امنا تي مندي في تي نيت ني مان كو خامني ني موي غروب بو خامني ينظر داي خول الى الكون دي خول دي جيمي تي كون بي نيك تي في ويحجبه كون بوبو يير كو عن المكون ها عن المكون وليف كيغا خامني مو مو عمل نيك تي مو لا نيكال waaw mooy loolu rek bu dee yow ki leen nekkal da nga xool nekkteef gi ba tax ki leen nekkal nga fàtte ko loolu loolu mooy kii maanaam euh, euh, euh, mbir mu nekk tamit dafa am loo xamante ne moom mooy objectif bi yàlla dafa dafa bind mbir yi teg leen comme ni ñu ko waxee sànq ngir feeñ maanaam ngir nga di ko gis ci mbir yi mais pas pour mbir yi yiir la ba doo ko gis moom yàlla maanaam moyen warulaat warul tere parce que gis nga moyen euh, am na qaida usuliyya bi nan la ko waxe euh, euh, jàppatuma exactement nan la nan nan la ko tërale mais sens bi lii la mooy moyen bu demee ba nar a xàññee objectif bi day daal di yàqu moom ci boppam maanaam moyen bi ci boppam day yàqu doo fi nekk maanaam dañ koy dañ ko fiy jël waaw comme tey bu fekkente ne euh, euh, kii boo xamante ne par exemple nit ki adduna bi yàlla nekkal gi mu ko fi nekkal dafa tax dafa waroon a tax muy gis yàlla à travers adduna bi mais pas di yam rek di yam ci àdduna bi booba de daal koy yàq yaa ngi de mi ngi mel ni tey euh, chèque bi dañ koo def pour mën a jot ci xaalis bi rek c'est-à-dire que <laughs> <laughs> waaw chèque bi moom moyen rek la hmm. mais buñ la joxee chèque bi nga téye tiim ko ah cawarkal la di ko contempler jàpp chèque bi di tagg rek ak ak yéemu ci chèque bi <laughs> te yóbbu wuloo ko banque ba ba ñu mën laa jox xaalis bi wala nga xotti ko waaw

manam jouissance bima wara am ci affaire bi pour loolu rek la mais xaalis bi mom nekul manam buma ma téye woon bi ni rek tek ko ni di ko xool moom kese kese du fat du fat fajul ben problème mais le fait que ma koy jël di utiliser diko ko fenn pour fo manam maanaam moy objectif manam kon moyen bi tamit worul nek li nga xamante ne day yàq objectif bi motax tax moyen bu nee ba wara a objectif rek moyen bi day yàqu. dootul maanaam ak nekkam dootul amati lieu d'être yow nag boo fexee xam nga borom subhanahu wa ta'ala sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid yàlla ne xel sef nañ leena a wan maam danañ len wan suñuy mandar gay suñu kiyam tan yu makki yii nga xamante ne buñ ko xoolee dañuy gis màggaayu yàlla kàttanam man-manam sañ-sañam maanaam dañuy gis yàlla à travers loolu melo yàlla yi ah gis yàlla à travers loolu mais loolu dañ koy def ci gox yi fil afaq wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom hatta yatabayyana lahum mbete moo bir leen ne annahu al-haqq ne yàlla moom mooy dëgg ne yàlla rek rek a fi nekk xanaa doyu leen ne yàlla moom mu ngi jàkkaarloo mbir mu ne maanaam euh, loolu boo ko gisee da ngay gis ne kon sama borom subhanahu wa ta'ala daf fee samp mbir yi pour ñuy ñu koy gis à travers loolu maanaam pour mu ñuy wan ay mandargaam ay ay turam ay melom màggaayam et mais pas pour ñuy rek di di di accentuer wu ci mbir yooyu noonu. te kéemaanu yàlla yi gën a mag nag mandarga yi gën a mag maanaam aayaat yi moom yu ci ëpp nit ñi dañ koy romb mais duñ ko mën a duñ ko gis. ndax dañoo mujj a nekk kiiraay parce que euh, bu ñu demee ba nga xam ne asamaan ak suuf si xam nga nit ki nga xamante ne moom xam na yàlla moom bu gisee même même à un moindre niveau bu gisee adduna bi nii ak ni ak yooyu moom daf ci yéemu ci gis màggaayu yàlla hé yàlla yàlla yàlla daal moo màgg même même rek. Euh, euh, même da gis à travers nit ñi mu gis ci màggaay yàlla bu rëy da gis mu am problème bu toy ni ñay gis benn waay bu jekki-jekki xamu ko xamaanu ko ñëw faj ko <laughs> lan lay wax yàlla dikk na ah yàlla dikk na man de mu ne yàlla de seetaanu ma <laughs> yàlla de jàppale na ma xam nga loolu lay wax parce que moom gis na ne en fait maanaam mbir moomu li ko dimbali ba génn ko ci xat-xat boobu moom gisul mbir maanaam mbir mi nekkul kiiraay ci moom bu koy teree gis yàlla mais yéeféer bi moom wala boog ki xamul yàlla mom da koy def kiray de lol day nek barrière bu mak par rapport ak mom da nan amna fi problème bay beug de yalla ñewul dimbali ma ah nit def nangam moma dimbali ah maanaam du gis ne ah ya manam du gis ne yalla mo dik à travers waaj mom du gis lolou waaye day gis ne waaj mo dik dimbali ko. waaw yàlla ma seetaan. wa yalla ma seetaan waye diw moom heureusement ana seen yalla bobu <laughs> maanaam loolu mooy à un moindre niveau gis nga moindre niveau boobu nag nii exemple bi jël ko nga yëkkati ko ci yeneen niveau yëpp mais nag mbir mi lu muy gën di tuuti di gën a naqaree ràññee ñi nga xam ne ñoo koy gën a xam rek ñooy gën a gis sew sew yi te xéewalu yàlla tamit noonu la mel lu mu gën a tuuti am na parce que dafa am nit ñoo xam ne fekk xéewal gi demul ba rëy duñ ko gis ñoom fekk ñi ngi noyyi di euh, dem bi dikk ñi ngi maanaam pour ñoom amuñu benn xéewal ñoom gisuñu ne am nañu benn particularité kon amuñu xéewal alors que loolu ci jëmmi boppam xéewal la goo xamante ne tey bu ñàkkoon attan nga koo ak beneen mbooleem am pour mën koo am mais doo fekk ne loolu dafa nekk kiiraay ci yow le ko mu fréquent xam nga tey jant bi la ko muy jóg fii di di dugg fii ak ni mu mel loolu léeg-léeg loolu day day day kiiraay la buy tax nit ñu bari duñ ko duñu gis ni taaru maanaam ni borom bi subhaanahu wa ta'aala amee kàttan parce que ak ba jant bi ni mu rëyee quand même nga koy gis muy jóge fii dem fee ak ni mu mel ak ni muy leere ak yooyu la fa naa waaye jant moom yow daal tàngoor yi rek ngay gis tey daal jant bi dafa tàng wala tey jant bi génnul yow loolu rek ngay gis alors que ki xam boromam moom bu gisee danaan ah yooyu eh, tey de borom sama borom nii la ma feeñoo maanaam daf maa feeñoo ci tàngal ma maanaam ci ma yëg ne tamit da koy def <laughs> mën a jaar foofu eh, ragal ko nangam nangam et cetera. dégg maa gis tey eh, benn vidéo ci YouTube bi muy def description de l'enfer ah non non non non tey laa gis benn vidéo la quoi bu tudd description de l'enfer léegi mu euh, ñu kii ko mais maa ngi gis am benn waay buy commenter ci suuf <laughs> naan naan waaye lii existé wul waaye yéen da ngeen a gis kenn ku mën a defar lu toll lu ngandee nii <laughs> maanaam kon moom gisul ne gisul kàttanu boroomam moom moom gisul kàttanu boroomam dégg mu ne kon parce que mu ne kon nag ah, ah, yàlla nag kon maanaam am na kon nit ñoo xamante ne li existé da leen di yiir ba tax duñ gis kan ki leen existé ki leen amal rek la ñoom am am gi rek la ñuy gis mais duñ gis ki leen amal fa hada loolu huwa al mooy li mu namm bi an ci ne laa yaqifa bu mu taxaw maa zawaati ànd ak jëmmi almukawanaat ya ñu nekkal li an na ndax nag li wér boor mooy almukawanaat la ñu nekkal bi nisbati ci buñ ko askananteeg loxo ñeel ko moom buur yàlla xijaabun yiiraay wala ne askanante ak waajooju xijaabun kiiraay la kiiraay la buy tax kon nit ki du gis yàlla waaye mi daal xalq am na ci mbindee fi nag nit ñi man koo xam ne yaraa day gis allah bur yàlla taala aji kaw ji ne huwa moom ci jëmmi boppam al wujud mooy nekk teef mooy jëmmi existence moom moo jël rek melo boobu di existence rek ràng ko lépp lu am sinon existence du am moom ci boppam kon yàlla en réalité kon dara nekk ci lu dul kan yàlla ay turam ak meloom jeex na kon lépp loo gis rek yow ah, moo tax loolu mooy résumé bi lépp loo gis gisal ne yàlla moo lan moo feeñ à travers loolu jeex na ci ay turam ak i meloom voilà ci voilà ci biti ngay gis nekk teef bi mais yàlla ci boppam maanaam dafa fees dell ak ay melo yàlla ci biir euh, tablette bii nii bii bu ma jàpp bi ma jàkkaarloo nii su ma ko gisee nii man limay gis moy benn boîte moom ni boîte bi ah <laughs> bu ñu peinture peinture bu weex nangam nangam et cetera man loolu laa gis du deug di meun di hein, défiler affaire bi di défiler han hein? ak di buma buma buma ma ben ma bësee benn tapé tactile bi han daal di meuna a génne li ma bëgg a et cetera mais amna luma échapper lu rëy té lu am solo la te loolu d'ailleurs moo mën a tax man ma di ko gis mooy technologie bi nekk ginnaaw ci ginnaaw ak programmation yu dul yu bari yi nga xam ne milliers et des milliers de programmation yi nekk derrière yooyu man gisuma ko ah du dëgg voilà <laughs> euh, assembleur bi nekk ci ginnaaw et cetera ak yooyu yëpp man gisuma ci dara man lañ laa gis man li ma gis mooy pro programme bu paree laa gis. produit fini laa gis ba nga xamante ne bu ma bësee benn bouton rek daal di ñëw kii alors que logiciel bu nekk bu ma ciy utiliser ay milliers de lignes ñoo koy ñooy tax muy mën a fonctionner normalement. ci programme loolu mooy programme mooy langage de programmation bi ñu utiliser bokkut langage assembleur bi nga xam ne moom moo mën a wax ak machine bi. ah du dëgg ah soxna Yaasin kon loolu loolu moom mooy ah loolu kon moom mooy maanaam loolu dama ko wax pour nga comprendre ne maanaam kon mbir mi lii li benn la lii mooy zahir bi mais ci biir ay programme la ci biir dafa fees benn la ay programme niki noonu mbir mu ma gis mu ne ci biti mooy jëmm mbir mi ma gis mais ci biir liy tax mu dox li tax mu ne fi li ay melo yàlla kese la maanaam mooy lan maanaam kon man derrière tablette bi dama war a gis consecteur bi ak technique yi nga xamante ne moom la jëfandikoo programme yi nga xam ne moom la def derrière mbir mu nekk naay gis tamit ki nga xam ne mooy ki ko concevoir mooy kan yàlla subhaanahu wa ak lan ak ay turam ak ay meloom yiy tax mbir mi fonctionner ndax leneen nekku fi di tax mbir di fonctionner lu dul ay tur yàlla ak meloom dañuy wax dañ naan programme yiy doxal mbir mu ay turu yàlla ak ay meloom yaa ngi dégg kon bu boobaa mën naa gis loolu looy gën di nag xóot ci di yàlla di la gën di ubbee ci mbir yi ngay gën a gis comme ngay gën di comprendre yan tur yan melo la yàlla feeñe yàlla yàlla feeñe à travers mbir mi loolu mooy looy gën di xóotal comme exemple bi ñu la joxoon ci kii maanaam loo gën a kii gis nga kii lii kat maanaam ba loo gis danga ci gis tur yàlla tur ak ay melo bu boobaa nag ku mel noonu falaa yadurruhu dootu ko lorati nazaruhu xool gi muy xool ilal kaw ni ci nekk te fi kooku bu boobaa bu ko neexee na dem tourisme fu ko neex du gis dara lu dul yàlla ak ki turam ak ki dara du ko la waaye su dul loolu rek nekk ci yëpp kiiraay la ñu doon ci yow yàlla nañu yàlla sàmm yàlla na nañu yàlla may dégg-dégg compréhension boobu compréhension boobu ñu soxla ci yow na mooy al maarifa